bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin nabiyina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimu al hakim bismillah nu fa seene dimbali ko sun borom ci jéem a tontu laaj yi mbokk yi rotal ci yoonu al imaamu malikin rahimahullahu taala mbokk mi laaj ni jamono ji demee ngir tawat ji nga xam ne moo fi xew ñu koy tuddee coronavirus ah, nga xam ne buñ demee ba kori incha allah yal na ci yàlla yu jàmm te tañu weesu ko mën naa am jàkka yi kenn du fa mën a julli jee ndax dañ koy tere ci jamono yii mooy laaj su boobaa kon nees war a def nees war a def rek mooy niñ daa def rek xam nga julli korite moom julli farata ko ëpp doole julli ajuma ko ëpp doole kon loolu moom daanaka du kaa xëy na mbooloo mu bari meeg yooyu waaye fuñ teree julli ajuma moom korite taxuñ ñu wax julli ajuma moo gën a diis xëy na bee nag lim nekk feet nekk mbooloo mi waaye bee farata la bii nag moom korite moom sunna su dëgër la kon nag su boobaa ni nit ñi def mooy jullee seeni kër rek Euh, su ko defee dajaloo wut kenn mu jiite leen def xutba ba xutba ba nekku ne faaw daa war a nekk arab comme li mbokk mi laaj naan ndax bu ñu amul ko mën a xutba xutba moom daanaka ku yeewu ko ne man ko xanaa ku xamul dara ba dara booloo te loolu ab jumbi ab julli war na koo jomm kon boo taxawee ci kanam mboolam rek wax ko ci olof mu ne alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala muhammadin wa sallim la ci des waxal sa olof a nañu sant yàlla kat mi ñu may ñu woor ko ci jàmm ak salaam te ñu ñaanal sunu way dawle ñi suñu borom nag dogal na ne tey bisu feet la ñu ngi baalu ñëpp xaq di ñaan mu jéggalu nanguñu suñu suñu tuyaab nanguñu suñu koor daal di toog boo toogee ba ci kanam nga daal di jugaat boo jugaatee waxaat la santaat yàlla alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla mi nga xam ne tey bis la boo xam ne woor li muy baax baax da cee aram tey bisu lekk la bisu naan ci lépp loo xam ne lu dagan la nañ ci sant yàlla baax te delloo ko ci njukkal jeex na loolu donc boo ko waxoon mu baax teewut ku mën a am xutba yi ñuy jàng ba tey baax na waaye moom nekku ne faaw da nga koy wax ci arab incha allahu rabbi wax ko ci olof gi sax day mel ne muy gën a jotale ndax day tax nit ñi xam ko ah kon loolu rek la kon dañuy euh, jullee ci kër ya ku ko mënut it mën na koo far bàyyi sax ndax ñàkk gaaw julli ba tay du wàññi dara nga xam ngànt am na. la ca tege mooy li mbokk mi laaj buñ xutbaa ba mu yàgg ñu toog loolu sunna rek la soo xam dañ ko gis ci yonante bi saa mu daa ko def ñu koy defee ni mu ko defee ah, ma da ngay gis ñu tiimale imam bi am morso loolu moom naaj wi dong la loolu moom jotewut ak dara julli gi jotewut ak dara xutba bi loolu ñaare bu dee dañu xutbaa foo xam ne day am ab naaj ni ki dëkk àll yi nga xam ne dañuy dem ba ca digg pénc ma waaye ah, bu dee lu mel ne jumaa yi ak jàkka yi moo demee jumaa yi Tuubaa kenn du ko def demee jumaay daaru min yeeg jumaay njeeri nga ne ko ne kay jiite ci biir jumaa ji lay julli amul naaj amul dara loolu kenn du kenn ko muural aw sagar sagaru naaj dong lay jariñ bu naaj amul rek matu ko moom jotewut ak julli dara dara dara ak xutba bi wallahu taala aalam bi sawaab bu dee laaj bi ci tege mbokk mi day leerlu nee na bu fekkee ne dangaa dem ca jumaa ja wala ca jàkka ja wala ca mbooloo ma di def solaatu tarawih mooy julli julli naafila yi ñuy naafila ci koor ba imaam ñëw di def safa witar ndax da ngay ànd ak moom safa witar gi te yow xam nga ne ginnaaw bi da nga war a naafilu at leneen wala boog da ngay bàyyi safa witar gi dem naafilu ba noppi doo def safa witar waaw li nga mujj wax noonu ngay def bu la wóoree ne boo sëlmalee ànd ak imaam boo demee sa kër da ngay naafilewaat te naafile gi léegi nga koy def nekkul looy xaar ba xaaju guddeeg yu mel noonu kon imaam boo àndeek moom bu naafile alxuraan gi jeexee rek ba mu def safa witar da ngay bàyyi. da ngay bàyyi safa moom bu la neexee sax mën nga ko def waaye witar moom doo ko julli boo demee sa kër daal di naafila yeneen naafila yi nga bëgg a naafila boo noppee nag doog ci teg witar mu jeex yonante bi moo ne woon seen naafila yi ko tëje witar hmm, ijaalu axira salaatikum al witra maanaam fi layli la ci jublu ci guddi gi bu fekkee nag war ngaa naafila waat waaye kat yow naafila goo léegi ay xaaju guddi ngay naafila waat niki boo tëddee ba quatre heures da ngay naafilawaat kooku nag mën ngaa def safa witar su ko defee nag boo tëddee ba xaaju guddi naafila rek ngay defaat waaye doo baamuwaat witar nag nga bàyyi ci xel incha allah wallahu a'lam bisimilah bu dee laaju mbokk mi mu ne ku tawat docteur yi xool ko ne ko mënoo woor mu daal di bàyyi waaye bi koor gi jàllee euh, mu delluwaat ca docteur yi bëgg a fay ñu ne ko ba léegi mënoo woor mu demaat ba weeru koor wi dikkaat docteur yi xamalaat ko ne ko mënoo woor waaw yooyu yëpp de li ko docteur yi wax rek lay def ndax ñoom ñoo xam wàll woowa teewul nag ba léegi du woor rek day bàyyi noonu rek léegi nag feebar daa am ñaari xeeti feebar daa am xew feebar boo xam ne moom dana wér am boo xam ne moom du wér mukk bari na feebar yoo xam ne moom du ñu wér dañ leen traité rek moom à vie la lii docteur bi naan ko mën a woor ba fekkee feebar boo xam ne mën naa wér waaye moom daa wéragul rek kon moom day bàyyi rek waaye saa yu wéree da koy fay du lele du joxe dara day fay day fay rek kon nag day bàyyi euh, bu demee ba wér nag bañ xool ko ne ko mën ngaa woor feebar bii feebar bu ñu mën a woor la wala sax bu ko neexee mën naa laaj docteur docteur ne ko ah, feebar daa wéragut moo tax mënumaa woor wala boog jëmmi feebar bi daa nekk feebar boo ne ko xas ba am doo a tee woor loolu yëpp docteur dana ko ci mën a tontu kon bu dee feebar bu wér la moom lu yàgg-yàgg bu wér bu wéree rek day tàmbalee ca lam njëkkoon a faat mu di ko fay ba mu jeex takk incha allah bu dee feebar la boo xam ne daa chronique mënta wér nag kon kooka koor moo ko wàcc teggil nañ ko koor day lele rek bu ko amee euh, bu mënee joxe ndoxu incha allah da koy def bis bu nekk rek bu mënee joxe ndogu mu def ko bu ko mënul nag mu bàyyi ko wallahu aalam bisimilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi leerlu kuy woor ku woor ba muy sangu nag mel ne ndox ma daa jaar ca nopp ya wala mu rëcc ca gémmiñ ga ba dugg ndox moom sëriñ bi moo xam daa jaar ci bakkan wala ci gémmiñ wala ci ay nopp bu fekkee daa àgg ca put ga rek ca bëli ga rek koor ga moom yàqu na moo xam yaa ko tey wala teyoo ko hmm, bu dee yaa ko nag dañ cee boole am ay kafaara i bakkaar waaye nii mu laajee moom daa mel ne ko la wax da ah, nag manees naa sangu moom te ndox mi du dugg foofa waaye daal moo xam da sangu moo xam loo mën def waaye ndox mi daal jaar na sa nopp wala mu jaar sa bakkan. wala mu jaar sa gibiñ yaa xam da ngay sangu ci géej yaa xam da nga doon féey loo mën a def la ca am solo mooy heure boo yëgee ne ndox mi rëcc na ba jàll ba nga koy sentir sa baat bi sa bëli gi koor ga moom yàqu na téewul nag da ngay àggale bis booba bis ba da nga koy te bu koor ga jàllee da nga fay loolu mooy li sukkandikoo ci yoonu al imaamu malik na rahimahullahu taala am na mazahib yoo xam dañuy wax ne moom heure boo dogee te tëyoo loolu bis boobu da ngay rek waaye doo fay bu dee ci yoonu malik moom boo dogee te tëyoo ko da fay li nga wax ni mooy dog ta tëyoo ko moo ko moo ko juuboon dem naan te ko ñooyam rek waaye nag faaw day àgg ci buli ka dugg sa nopp yi kese kese du tax ñun la da ngay fay ah, xam naa dugg ci nopp jàll ci buli ka yombut lu mu jur yëpp daal ci bakkan wala gimiñ moo gën a gaaw jàll ci buli ka loo ci yëg ne jàll na ba sikk sàkk woo ko moom faaw moom bis boobee da koy mottali ba noppi da koy fay wallahu aalam bisimilah mu dee laaju mbokk mi laaj bu njëkk bi mu ne jigéen joo xam ne daa gis dereti baax Euh, ci weeru koor nag ci guddi gi mu set nga ne kon mën na woor tey daa war a yéenee woor sax nag ndax ñàkk sang moom du ko wàññi dara même bu même bu ko tayoon tëdd nelaw noonu nga xam ne sanguwuti du tee moom bu yéenee woor rek koor gi moom dana wér ndax ñàkk sang yu jotewut ak dara koor gi waaye moom bëgg laaj mooy jigéen ji daa amut ndox mu mu sangoo nga ne naa sangu war naa julli kon koor gi mom ñàkk sang gi du ci dara xanaa kay uh, julli ga kay la wax waaw kooku suba day tiim kooku moom moo góor gu am jana janaba te amul ndox ñooyam rek day tiim rek julli gu jot day tiim fas yéenee dagandu tiim bi ci julli gi te buy tiim daa war a yéene waale janaba ja daa war a bàyyi am daa am sobe bu dee borom janaba bu dee ko war a euh, ko dereti wasinam wala da cee war a bàyyi waale xel da ko war a yéene waale waaye kooku day tiim tiim ba nag euh, nekkul ne da ko daa mel ne daa sangu janaba déedéet sa ñàkk ñàkk sangu ga moom da koy yore rek heure bu amee ndox day dem sangu ci waaye julli gi nag moom heure bu julli jotee day tiim koor gi nag moom ñàkk sangu du ko yàqal dara moo xam ko am janaba xëy suba sangut wala ku deret ci baaxam jeex xëy suba sangut ñàkk sangu ko moom yàqul dara ca koor ga du tee da yéenee woor rek kon kooka day tiim bu da ñaareel laaj mbokk mi laaj nit ku baax nga nga di ko waxal radiyallahu anhu buñ tuddee nit ku baax ñu ne alhaaji malik si nga ne radiyallahu anhu mu ne am na am na ñoo xam ne dañ naan loolu kenn wuru ko wax dañoo waroon wax nag ne ne rahimahullahu yàlla ko yàlla yërëm loolu ñàkk xam la rek ñàkk xam la daa bari ñoo xam ne ñoom daanaka seen diine mooy diingat daanaka ñoom dañoo am jot jotu diingat te it seen aliwa mu sori ndax loo xam ne alxuraan sax wax na ko yow nga naan kenn waru ko wax lool li muy tekk mooy ñàkk xam dëgg ñu ci bari nag dañuy wax ta xamuñu dañuy yàkkamtee weddi wala ba nga tàmbalee jàng li nga jàng bëreegut nga tàmbalee weddi xaat ba ci borom xam-xam yëpp nee ñu nit bu njortee ci moom aw yiw rek mën nañ ko waxal radiyallahu anhu ndax alxuraan moo ko njëkkee alxuraan alxuraan bam naan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ñooñu duñ ay saxaaba ay nit ñu baax lañu radiyallahu anhum loolu ci teg alxuraan di moo ko wax mu ne radiyallahu anhum xanaa kon kooku li muy tere alxuraan def na ko alxuraan da ne ña njëkk a jébbalu te bokkoon ci muhaajiroona ya ñooñu ay saxaaba mu teg ci ña ca tege te mooy al ansaar mooy ñu yonent bi fekkoon madinatu munawwara mu ne ñoom ñi day yal na leen yàlla gërëm wala boog yàlla gërëm na leen ñu ne ko ca ca ngay yem mu ne déedéet ak ak képp ku ñëwaat ci ginnaaw te jaar ca tànk yi jaaroon xanaa leerut nit ku baax ku ñëwaat xool fa saxaaba yi tegoon seen tànk mu roy leen teg fa tànkam yàlla nee na radiyallahu anhu kon mën a weddi bay weddi alxuraan moom ñàkk ak réer foofu la yem yàlla nañ ci àlla musal wallahu aalam bisimilah bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj ne koor koreek ak yu mel noonu ndax di ko tënk ci màkka heure bu ko màkka defee nga def ko wala yu mel noona ndax loola diine la waa xam nga diine moom du tënku ci dëkk dëkk bu mën a doon nag màkkaak madina toog dëkk beneen dëkk bu mën a doon diine moom wàllu dëkk amu ci yoon diine am njàngale la du ay dëkk du ay du sax jëmmi nit diine ay principe rek la maanaam am njàngale mu bàyyi koo ci yàlla tënku ci dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa lim wax moom leer na dana suumoo li yi woor leen bu ngeen ko gisee néewut woor leen bu Makka woore wala Madina wala beneen dëkk boo xam ne dañ koy màggal di ko teral kon koor mi ngi saxe ci weer kori mi ngi saxe ci weer tabaski mi ngi saxe ci weer aj Makka mi ngi saxe ci weer bi loolu du sax ci dëkk bii def na ko ak dëkk bale def na ko incha allahu rabbi léegi nag nit ñi seen ñàkk a maandu ak seen ñàkk xam tax na coow li bari ñu réer ñi kenn ku nekk yaa nga naa man dëkk nangam boo waree laay woor loolu li muy tekki mooy teguwoo ci xam-xam incha allah te la ngay def kenn déggalu la ko bal borom dëkk boobu ngay wax sax santu la ko yonent bi santaanewul loolu bu dee ku dëkk Tiwaawan borom Tiwaawan santaanewul loolu bu dee ku dëkk Touba borom Touba santaanewul loolu moom nee na li yonent bi wax dong laa wax kon foo mën a nekk séentul weer boo gisee incha allah nga woor boo gisut nga laaj sa mbokk julli ya nga dendal ca dëkk ba bu fekkee ñoom gis nañu nga doyloo loola boo gisut nga xool dëkk ya ko wër ba xam bu fekkee nee ñoo séenu nañ ba gis ba tey kon mën ngaa doyloo ñooña loolu mooy diine waaye nag ñun par parloo la ñuy doxee man murit laa bu muritee wooree man tijaan laa bu ko defee man maa ngi bokk ci association euh, Ibadu Rahman kon màkk dong laay déglu léegi diina ji noonu lañ ko doxalee loolu nag amul benn bu ci jaar yoon ka jaar yoon mooy ka wax ne yonent bi nii la ko waxee noonu laa koy defee wallahu taala aalam mu dee laaju mbokk mi muy laaj ndax xarit dana mën a rammu xaritam ëllëg yowmal xiyaam ah waaw bu amee ngërëmal yàlla <laughs> bu amee ngërëmal yàlla de dana ko man bu ko amul ko doom bu amee ngërëmal yàlla te baayam texiwut mën na koo ramm baay bu amee ngërëmal yàlla mën naa ramm doomam jëkkër bu amee ngërëmal yàlla mën naa ramm soxnaam soxna bu amee ngërëmal yàlla mën naa mën naa ramm jëkkëram loolu mu ajul ci xarit donc ramm daal ka koy def mooy koo xam ne yàlla da koo gërëm jox ko ndigal wala yashfa'una illa liman irtada yàlla nee na kenn du mën a ramm lu dul ku ma gërëm mhm. kon nag mi ngi noonu laa am na ndax na ñoo xam ne la euh, laa tanfa'um shafaa'atu shaafi'iin am na ñoo xam ne rammukat yi sax mënuñu leen ramm yàlla nañ ci yàlla musal kon nag yàlla nee na kay ramm mooy ka nga xam ne a jox naa ko ndigal illa liman azina lahu rahmaanu muy benn wa radiya lahu xawlan ramm daal mooy koo xam ne jox naa ko ndigal tey daa doon ku ma gërëm kooku daal mooy ram moo xam nag xarit la mën naa ramu xaritam mën naa ramu baayam mën naa ramu ko ne bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj wax gi ñu wax ne doomu njaalo du dugg àjjana loolu de boo ko déggee da nga xam ne wax la joo xam wax ju dëng la ndax daa mel ne kon dugg dugg àjjana daa ajo ci nga judd ci yoon a nga bañ a judd ci yoon kon daa mel ne kon ku judd ci ab sëy rek moom da ngay dugg àjjana moom ah ndax kii moom li ko tee dugg àjjana mooy daa nekk doomu kon xanaa ku judd ci yoon mu da ngaa war dugg àjjana far force kon loolu doo wax ju jub ñaareel ba nga ne doomi jaalo du dugg àjjana kon da kon loolu li muy tekki ma da bëgg wax ne jaamu yàlla mu amatul benn njariñ jaamu yàlla kon maanaam néewuñ jaamu ne yàlla wala moom dañu judd na ci doomi dugg àjjana loolu ba tey du wax ju jub dugg àjjana nañ dellu ci yàlla moo jàngal ñu ba kan mooy dugg àjjana yàlla kan mooy dugg àjjana daa wax ne saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu uiddat lil muttaqin nee na gaaw leen njëkkante njëggalug yàlla gi gaaw yor melokaan woo xam ne da ngeen mën a dugg àjjana ja nga xam ne na ma yaatoole yi mu ëpp ak suuf yi àjjana jooju nag ña tax ma defar ko di ko waaj bëgg bu ñëwee ma dugalee ci mooy ña ragal yàlla jeex na ñii daal ñooy dugg àjjana yaa xam du juddu nga ci yoon judduwoo ci yoon liñ la sant daal mooy est-ce que jëfe nga ndigal yàlla yi bàyyi nga tere yi ragaloon nga suñ borom da ngay dugg àjjana boo juddoo ci yoon it te ragaloo yàlla jëfoo ndigal bàyyiwoo tere yi doo dugg doo dugg àjjana kon dugg àjjana dugg sawar ma nga aju ci jëf ndigal yi bàyyi te waa ajuur ci ak juddu <laughs> ndax bu doon loolu moom kon ku judd ci aw yoon rek da nga naan man jeex na judd naa ci yoon kon faaw damay dugg àjjana kon a ajuwul foofa ñaareel bi mooy suñu borom subhaanahu wa taala nee na lépp lu nit def dina ko fekk ëllëg yowbal xeyam muy tegeta danaa ko ko fay waaye doomi jaalo bi léegi bu fekkee daa jëf-jëf ju baax di julli di woor xanaa yàlla du du dem ci yàlla yàlla naag yow moom du la jox ndax doomi jaalo nga kon subaa yàlla day dindi la mboxoon ni wa wajadu ma xamilu xaadira wala yazlimu rabbuka ahadan suñu borom nee na loo mën a def boo jëlee da ngay fekk jëf muy tege du mala la tooñ kon nag boo nee doomu yàlla bu jëfee lu baax ne yàlla ana sama jëf ju baax mu ne ko yow kat dama lu du fay ndax dangaa judd ci yoon mu ne ko maa man lu sama yoon est-ce que man maa jur sama bopp ban bàkkaar laa def te yow yaa ne woon ku jëf lu baax nga fay ko jëf naa lu baax yaa ne woon wa an sa lil insaani illa ma saa nit ki amut lu dul lim jëf amut amut askanam ëllëg yow man xeyam sa askan mënu laa jëriñ dara bal dañ lay daw amut daal juddoo ni amut dara la am daal illa ma saa la nga jëfoon daal lañ lay fay kenn du laaj noo juddoo dañuy laaj rek loo jëfoon kon noon dong la fa amma man thaqulat mawasinuhu fa ulaika humul muflihun koo xam ne say balance diis na duñ laaj noo juddoo de duñ laaj ay kan duñ laaj koy sabaay yow daal la nga jëfoon jëf ju baax ji diis na fa ulaika humul muflihun yàlla nee na ñooñu ñoo dugg àjjana ku sa jëf oyof nag ak foo mën a judd ak askan woo mën a bokk na la ab yonant jur sawara ngay dem yàlla na ci àllu musal wallahu taala alamu bisawaab bisimilah mu de laaj bi ci tege mbokk mi day laaj ne ku génne azakay murum koor ndax mën na ko jox eh, ay donga daara donga daara yi war di sàkku ndimbal ci wàllu ak lekk waaw képp ku ko yelloo rek mën nga ko jox képp koo xam ne daal gis nga ne kii dana ko yittewoo dana ko mën a dimbale ci korite gi incha allah tam nekk ab jullit rek incha allahu rabbi mën nga ko koo jox euh, day mel ne nag bu dee xam nga borom kër ngoo xam ne dafa yore kër rawate sax mu doon koo xam ne dana rusa dem naan day yalwaan euh, incha allahu rabbi kooko jox ko ko mooy gën bu dee nag donga daara yi euh, dañ koy jëfandikoo ñoom ndax donc bu dee donga daara yi am na ci ñoo xam dañ koy jël di ko jaayaat rek mmh, kon bu fekkee mi joxe ko ca daara ja moom kooku moom day daal di gën ndax daara ja bu fekkee ñoom dañ koy toggee kon su boobaa loolu moom nga jox leen ko loolu day daal di gën waaye nag bu fekkee doo nga yelwaan rek moom comme ni mu xewee ci dëkk bi nga xam ne da leen jox dara ñoo lutiku jaay ko nga xam ba rek moo leen ca ñor ah kooka nag su boobaa nga xool borom kër goo xam ne daa yore kër yore ak njabootam te xëy na mënta génn di tàllal loxo nga joxe ko kooku moom moo gën. su ko defee la nga mën a sarax donge yi nag nga sarax leen ko bu dee nag donge yi dañuy génn di wuti loo xam ne moom la ñuy toogee kori gi kon ñoom ñoo borom kër yi ñooy am rek wallahu aalamu laaj bi tege mbokk mi di laaj nee na naafile yi nga xam ne dañ koy joxe di ca wax ay ngëneel ne ku ko def danga nga am nangam mu ne ngëneel yooyu fan la bàyyi ko dëgg-dëgg ah wax dëgg de noonu ñu koy dégg rek laa ko déggee taxut ma xam ca lu gën a yaatu loolu taxut xadis yi yonante bi salaa salaam waaye ñu di ko gis ci xëy na téere yi jàngale atte yu mel nii daal noonu ñu koy dégg rek ak téere ya mi bàyyi ko noonu rek lañ ko déggee euh, xamuñ co lu gën a yaatu loola bu dee daal téere yi fiq yi ñuy jàngale moom duñ ko ca gis bu dee xeetu xadis yi ñuy jàngit duñ ko to duñ ko ca gis euh, lañ koy gis daal ay nit ñoo xam ne ay nit ñu baax lañu ñu ne ñoom ñoo joxe naafile yooyu ndax nag nit ñu baax ñooñu ci boppam ñoom seen jëmmi bopp ñoo joxe naafile yi nga xam ne xëy na seen diggante yàlla la yàlla leen ko xamal xamal leen ni leen ku def naafile gi danga am nangam wala boog nit ñu baax ñooñu dañ koo tuxal buñ ko tuxalee fan lañ ko tuxalee loolu lépp de ay laaj la yoo xam ne wax dëgg noonu amuñ ci tontu bëgguñ ci wax lu nu leerut moo tax du nu mën nañ cee bañ a xuus wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ko faatu ndax mënees na koo fayal kooram waaw nee ñu dañ koy rek. waaye nag nekkul loo xam day war ne ngir benn xadis benn waaye bu ñëw ne eh, menn mbokkam defe naa yaayam wala tudd menn mbokkam daa faatu amoon ay bor ndax mën naa ko fayal ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah, ndax bo fa bàyyi woon bori xaalis da nga ko ko fayal mu ne ko waaw mu ne ko kon day bor yi bor bii moo gën a yey loolu nag bu dee ci yoon al imam Malik nekkul lu war xëy na bu ko kooke mën def incha allah wooral ko ko yéene ko yor ba day mel ab sarax rek waaye nekkul lu war nag. laaj bi teg mbokk mi laaj xale boo xam ne day woor ndax kilifa am sañ na ko koo tere rawatina bu ca yaakaare ak loru waaw bu dee ci yoon al imam malik soppuñu sax xale di woor soppuñu ko comme ni mu xewee Sénégal gii soppuñu ko dañuy bañ xale di woor te it loolu moo dëppook xam-xamu docteur xam-xamu docteur nee ñu gone daa doon koo xam ne fi mu toll day soxla lu bari ngir mën a màgg ngir ay cëram gën a mën a mat moo tax daal ngir muy woor gënut wala ba bu fekkee day woor mën nañ ko defal wooru gàlle rek mi di jotee ñu ne ko yéen seen koor gone yi bokkut ak koor yi mag ñi jox ko mu lekk ba suur mun naan ba màndi la ca desit ñu kii ko rek waaye daal gone di woor daal taxul ñu taamu ko nit ñi taamoo gone di julli di ko ci soññe duñ ko taamu ci wàllu koor ndax day da koy teel a lottal te nee ñu bu demee ba nekk mag sax mën na koo feeñoo kon nag eh, xëy na buñ ko mënee organiser rek bu waree benn fan dog ñetti fan te bu wooree nga di ko seetlu boo gisee mën a laaj tëdd nga dog koor ga incha allahu rabbi loola noonu la ko yoon al imam malik jàngale wallahu alam bu dee laaj bi ci mbokk mi laaj na ko am soxna soo xam ne du julit mu dem ba ëmb daa di génn adduna nga ne kon xëy na doom jàng ci biir ba kooku nees kay robe euh, boroom xam-xam dañoo am ay wax yu ay wax yu bari am nañu ne dañ koy denc rek ca armeel julit ña ngir bàyyiwaale xel doom ja nekk ci biir ndax doom ji mu ab jullit la rawatina bu fekkee bu ba sori woon na am na ñu ne déedéet jëmmi ndaw sax rek la ñuy yóbbu ca armeel yi ñam bokkal diine armeel yi chrétien ya ñu deñ ko foofa doom ji loola duñ bàyyi xel doom ja ndax comme nekkul ci bit ci daa nekk ci biir la ca des nag mbirum suñ borom la doom joojee comme dañ koy jàppee ab jullit bu fekkee jotoon naa mat bu ëllëgee yomal xeyam kooku mbiram mbirum yàlla la ndax denc ko foofa moom ko dara <laughs> ko wàññi dara am na nañu ne kooku soxna sooso dañuy wut suuf soo xam ne du armée li jullit du armée li yéefar ñu denc ko foofee ay wax la mel na ne nag euh, incha allahu rabbi di wut seneen suuf su bëgg la suuf soosu moom mel na ne ay jafe-jafe rek lay indi moo tax mën nañoo bàyyi xel doom ji nekk ci biir denc ko ci armée li jullit ñi buñ ko dencee ci armée li yéefar yaat du wàññi dara doom ji wallahu aalam bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj sujjootu alquran ndax daa am waxtu yuñ ko may ak yuñ ko mayewut waaw wax waxtu yiñ ko teree rek lañuy ñuy jéem a xam te moo di waxtu yi nga xam ne dañoo tere ku ci naafila rek euh, donte moom sax bu dee boo jullee takkusaan ba noppi danañ la may nga di ko sujjoot ba jant bi tàmbalee lang di waaj a sox su boobaa dañ koy tere ak ba ak jant bi soo bu tollee ci di soo ak ba keroog muy soo bay jeex takk diggante boobu dañ ko fiy tere naka noonu waxtu bi jant bi tollee ci di fenk. ak ba keroog muy fenk ba yëkkati ko tuuti diggante boobu rek lañ koy teere bu bëggut yooyu incha allah boo matalee sarti rek mën ko ko sujjoot laaj bi tege mbokk mi di laaj maye deret ak pikiiru ndax dana yàq koor déedéet maye deret day bu fekkee sa wér may na la ko maye nga ko te yàqulu la dara yequl dara ca koor ka pikiir it bu dul perfusion mooy di la samp biteel wala di la jox ay yoo xam ne day remplacer lekk wala naan loolu pikiir buy yokk doole wala muy défendre dara. incha allahu rabbi yooye yàqul koor wallahu aalamu bëgguñu rek nit ki feebar ngir bañ a dog koor gi taxaw di jéem a jéngoon teg feebar bi loola bëgguñu ko dañuy bëgg ko feebar tam wóor na ko ni moom mi dog te naan ay garabam def li mu war a def pikiiru def li def moo gën jëmoon na dog te bañ a insister ca loola yàlla moo gën a xam li gën ci ñun te téewul daa wax ne bu ngeen feebaree bàyyi leen bu ngeen feebaree bàyyi leen am na sax ci borom xam-xam ñu jàpp ne ku feebar boo waree sax koor ko du baax ndax alxuraan noonu ma ko waxee fa man kaana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayaami uxra ñu ne kooku yàlla moo ko wax mu ne ku feebar na bàyyi ba yeneen bis kon ñu ne comme yàlla nee na na bàyyi kon sëñ ta woor mu de yoon al imam mari boo waree koor ga dana baax waaye daal eh, di ca togg ay coona nag kooku moom mën naa ñàkk kenn tegu ko ko mu dee bi ci sëriñ bi laaj lu jëm ci wàllu taaraar daa mel ne taaraar la wax taaraar xëy na ñi yëngudu ci wàllu mbay danañ ko xam ba demee fa ñuy hmm. jaayee gerte ga dafa am machine bu ñu fay teg boo xam ne boo ñëwee di jaay gerte dañ koy sotti ci machine ba su ko defee di ko segg di tànn ba nga xam ne taq-taq yaag bant yaag doñ suufe yëpp dana dañ ñu doog a xam saako bi nan la toll waaw loolu day <laughs> wax dëgg ak njub la loolu moom ak njub la bu fekkee da ngeen ni jaayante wala nga ñëw foofu di jaay dugub wala lu mën a doon ñu ne dañ dañ koy taaraar ba noppi incha allah mi ngi aju ca kay jaay rek bu fekkee kay jaay d'accord na ñu taaraar ko ba nga xam ne gerte ka dong moo ca nekk loolu moom dara nekku ci incha allah wallahu a'lam bu leen neexee nag ñu jaay gerte ga noona kay jënd jënd ko noona rek nu mu ko fekkee baax na ndax la ca ëpp eh, yooye ñu cay tànn ak yu mel noona loola mën naa am du ca bari lool waaye daal taaraab daal ak njub la dara nekku ci alhamdulilah bu dee bi ci tegu mbokk mi di leerlu koo xam ne asaka yi muurum koor da ko war a génnewu ko waaw kooku moom da koy war man day nekk ab bor boo xam ne day gàllu ci aw loosam rek heure bu ko manee rek faw war na koo génne mi ngi mel daa am bor bu mu amee way ñàkk ñi rek kon daal na xam ne lu yàgg-yàgg it bor ma ngi ci kaw doxam mu nekk àqi sunu borom faaw war na koo génne dem jox ko way ñàkk ñi même bu tegaloon ay yoon yoon génnewu ko heure bu demee ba bëgg a dellu ci yàlla bëgg a tuub loola war na koo dajale nam tollu mu génne ko benn bu ci nekk mu xool ñaata laa waroon a génne ak ñaata laa waroon génne sama doom sama soxna mu dajale ko xool lépp nu mu toll mu génne ko joxe ko laaj bi tege mbokk mi leerlu euh, asaka yi muulum koor jooju nag mooy ki ka man nga xam ne da koo war waxuñu nag koo xam da koo amut mënu ko kooku moom toppuñu ko dara mu ne koo xam ne dafa dugg maanaam dañoo noddu ca fajar mu dem ca jàkk ja ndax bo demee sañ naa def tahiyatul masjidi daa di toog bu noppee daal di julli yaari rakkee fajar doo ko xaar julli gi wala nu muy def loolu wute ci waroom xam-xam yi ci yoonu al malik am na ñu ne boo demee ca jàkka ja da ngay def tahiyatul masjidi doo ko jukk julli yaari rakkee fajar doo ko xaar nag julli suba gi waaye daa mel ne lañ gën a sukkandikoo mooy benn ñaari rakka rek ngay def te la nga cay mooy ñaar rakkee fajar maanaam daal boo ñëwee ca jàkka ji nodd nañu suba na fekk nag ñu noddu salaatu wax ma noddu gu njëkk noddu gu mujj bu fekkee nodd gu njëkk dong la ñu nodd moom kon fajar ak suba jotagut kon bu wëñee da ngay def tahiyatul masjid toog buñ noddee fajar nga doog jóg def sa yaari rakkee fajar doo ko xaar waaye bu fekkee dañoo noddu noddug salaatu nga dem ca jàkk ja la gën a dëgër ci yoon al malik mooy da ngay julli ñaari rakkee fajar yéene waale ci tahiyatul masjid mu doonaale ko mu nekk wenn xeer bu jëm yaari picc kon boo ñëwee rek dangay ngay fas yéene julli fajar su ko defee mu yóbbaale ñaari rakkay tax tahiyatul masjid nuyu jàkka ji boo daal di toog kon doo defee ñeenti raak waaye ñaar ngay def rek yéene ci fajar ak tax tahiyatul masjid daal di toog xaar imam teewul nag boo defee ni ma njëkk a wax ba tey wér na laaj bi tege mbokk mi laaj imam juy jiite ndax sañ naa jàng ay riwaaya maanaam ay xeetu njànginu alxuraan yu bokkul day def loolu di sañu ko loolu imam imam sañu ko maamum sañu ko kenn sañu ko kuy jàng alxuraan yi kese sax sañu ko ndax day mel ne foo ak fo dañuy bëgg booy jàng benn riwaaya nga jàng riwaaya booba wala booy jàng benn xiraa nga jàng xiraa booba rek yem ca bu la neexee nag boo jàngee ba sëgg ñëw ci beneen ràkk bu neexee jàng beneen euh, xiraa ndax comme jàng nga bee daa mel ne jeex na da ngaa tàmbalaat beneen amma di ko jaxase nag alxuraan dee su ko jaxase loolu day nuru am fo ak ñàkk teggin laaj bi tege mbokk mi laaj ne jigéen la joo xam ne daal sëyi woon feneen borom këram bu njëkk am fa ay doom gannaaw ba mu jóge fa sëyiwaat feneen borom kër bu njëkk ba nag comme am naa moom ay doom mu de mu di leen jox dépense waaye borom kër bu mujj bi nga xam ne xëy na am njóobeen la moom daanaka day bëgg di dund ca dépense boobee seen bàyyi di leen joxeel ah, ba gone yi jigéen yi ginnaaw bi nag nangootuñ ko incha allah waaw loolu day moom sañ nañ ko sañ nañ ko loolu moom luñ ca def te déggoo ci rek baax na gone yi jigéen daal ñoo moom dépense ba seen yaay sax moomu ko bokku ca kon bu fekkee seen bàyyi jee day def weeru jot mu yëkkati fukki junni ne dépense leen ko loolu gune yu jigéen yëpp ñoo ko moom bu ñu ko joxee ci kër kër gi nag ñëpp bokk ca lekk alhamdulilah buñ ko nanguut ñu jox leen seen alal te borom këram bu mujj bi moom jéem a dem lijjanti ci dépense te bañ a bàyyi eh, rek di wéeru ci jigéen ñi bu dee laaj bi ci tege mbokk mi nee na day leerlu tuur ndox ci mbedd waaw loolu de dafa dafa civilisé wut sax nag daa bokkul ci ak nite ak ak mooy taxaw ci mbedd di tuur ndox wax dëgg nit ku am orma ak am lu muy rus du ko def xay na nag bu ko nit defee ngir ñàkk na pexe amul fu mu dem loola ñu xam ne kon ñàkk pexe la waaye daal euh, mu kallaf daal mu responsable boo ko tuur ndox dabee ci mbedd day dugg ci kër dama bëgg tuur ndox ñu jox ko satala duyal ko mu dem tuur ndox waaye ku amee teggin daal war na ko wattandiku ndax ak tooñ la yaa ngi tooñ waa mbedd mi yaa ngi taqal foofu wërta taqal yaa ngi indi sobe di ko def ci mbedd mi tey yaa ngi xawwi sa sutura ndax fu nit toll di la gis wallahu aalamu laaj bi tegee mbokk mi laaj ne dugg stel dugg wanag di yóbbaale sa téléphone loolu bokk na ci li li nit ñi tàmm te it wax dëgg du du wàllu lislaam lislaam moom yoonam nekku ci téléphone foo koy yóbbu ak foo ko dul yóbbu ak loolu sa mbirum bopp lislaam atte yi diine yi lay atte amaa yëfi yor sa téléphone kooku sa mbirum bopp la moom it la gën rek mooy téléphone ñu di ko yemale ci bitti waaye daa dem ba nit ñi dañoo chronique ci wàllu téléphone naan téléphone dafa dem daa dem ba gën a garaaw lekk ak naan fi mu nii am na ñoo xam ne bu ñu yoroon lu dul luñ jënd connexion te amuñ luñ lekk connexion lañ koy jënd te a lekk daanaka. mais bu ñu xoolee ñun li ñuy dépensé ci euh, crédit euh, ak yu mel noonu daanaka duñ ko dépensé ci lekk bari na koo xam ne bu xëyee suba moom problème bu mu mën a am garaawut waaye fi ne connexion bu jeexoon xaaju guddi dana tilli tilli daa mel ne daal bu fanaanee te amul connexion day faatu. loolu nag tubaab yi ñooñu ko naxe fexe ba mu mel ne daa nekk na loo xam ne lu nécessaire la wala boog lu indispensable la lu mënta ñàkk la fekk lu mën a ñàkk la fi mu boo ko amutoon wala sa téléphone réer bi ngay toog day xaw a metti lool waaye boo ko defee ñaari fan semaine day mel ne wàññiwu la dara ndax bu yëggatoo jaay amu amu woon téléphone te wàññiwutoon dara te bari na ñu ko yoru te wàññiwu leen dara waaye seytaane rek moo ñu jàpp looloo tax nag ñenn ñi dem ba ba di ko yóbbu ci kon nag waaye bu dee lislaam daal moom la bañ mooy nga yóbbu ko ca wa nag fekk alxuraan ma nga sa ca kaw wala boog lu ñuy xormaal wallahu aalam laaj bi ci tege mbokk mi laaj saxaar bu fekkee daf la dugg ci weeru koor gi waa wax ja gën a wér mooy saxar mu mënta yàq koor teewul nag am na ñu maanaam ñam bu ñuy togg saxar soosee di ca génne bu fekkee daf la dugg ba nga nga nga nga yëg ca ak cafka maanaam saxaar soo xam ne bu la duggee ne ki njóobeen yi nga ne saxaaru ñam ndawal gu ñu dog yu mel noonu eh, ñoom saxaar sa rek dañ cay bànneexu am na ñu ne saxaar soosee moom bu la duggee ba ca bëli ga kooku moom du yàq dara ca koor ga eh, kooku moom day yàq koor am na ñu wax loolu maanaam saxaar soo xam ne dafa yor dafa yor melaw ñam ñu ne kooku moom bu àggee ba ca bëli day yàq koor waaye bu doon saxaar soo xam ne yorul melaw ñam ni ki matt dong lañ taal wala ay këriñ kooku moom wax ji gën a wér mooy du yàq dara ca koor ga wallahu aalam laaj bi tege mbokk mi laaj na boroom kër ak soxna ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp am bëccëg maanaam am ngant ci bëccëgu weeru koor ndax sañ nañoo jote ah waaw sañ nañoo jote sañ nañoo jote nekki ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ay musaafir ñibbisi dañoo tukki woon euh, matal nañ sart yi wóoruñ ñi ñibbisi ci bëccëg yi incha allah kooku kenn du leen forcé ni leen da ngeen ni da ngeen ni lekk déedéet euh, kenn du leen forcé ni leen da jàpp. kon bu ñu ñëwee mën nañoo kon ne lekk ak naan bu ñu koy ne ko ne soxlaa sa morom incha allahu rabbi mën nañoo jote naka noonu bu fekkee borom kër gi moo ñibbisi nekkoon ci tukki ñibbisi ci bëccëg weeru nga xam ne kon sañ naa continuer lekk ak naan far yàlla dogal mu fekk soxna si amoon dereeti baax ba digg bëccëg moom it mu set ñoom ñaar ñëpp kon seen ngant mën nañoo continuer bañ a woor te kon mën nañoo jotee mën nañoo sëy laaj bi ñu tege mbokk mi laaj ne lu mel ne juri kër yi nga xam ne dañ leen a war a tëbaskee ñaata at lañ war a am waaw lañ gën a bëgg de mooy mu mat euh, euh, ñaari at wala boo gën gaa néew mag na ñaari at sax bu matee at at at lu ca tegu rek baax na maanaam at daal lu ca tegu baax na dañoo ëppante nag bu nekkee xar wala bay loolu wax dëgg leeraloon na ko ci sunu bindu tabaski ya nga xam ne moom lañ doon jàngale waaye daal comme ñun li ëpp ci suñuy suñu tabaski daanaka xar la wala béy moom na mat at ba dugg ci atum ñaareel ma bu amatee at daal ba teg ñaari weer wala at ak ñetti weer baax na ba tey bu nekkee at mu mat sëkk rek ba tey baax na moom la mag ñi daan tuddee foq naan foq na mooy matal am at teewul nag ci yoon al imam Malik am na ñu tudd juróom weer am na sax ñu ne bu weesoo juróom benn weer rek waaye wax ja gën a dëgër daal mooy na mat sëkk bu at ma mënee teg mu gën a baax bu mënta teg nag na mat na mat am at sëkk kon nañ bàyyi xel xeetu laadum yi nga xam ne ay xar lay doon yoo xam ne juróomi weer donc bu ko amee day ponkale lool lu mu mat mat sëkk ak lu mu rëy rëy rëy te amut juróomi weer wala amut juróom benn weer kooku matul tabaski ñu bari ñu ngi ciy juum nag kon du bi waaye mat at mi tamit da ciy am solo wallahu aalam bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj eh, imaam ak maamum joo xam ne dañoo bokkut mazhab ni ki yow mazhab bi nga bokk siggi rukon daa doon farata kon loolu mën nañ ko misaale mazhab imam malik imam ji nag moom mazhab bi mu bokk si rukoo du farata kon ba tey mën nañ ko misaale mazhabu alxanafiya abu xanifata ndax dañ mën a jiitante wax ji gën dëgër mooy déedéet wax ji gën a mooy déedéet bu fekkee ne dëgg la sax moom ñàkk bokk mazhab du tee ñu mën laa jiite waaye nag eh, boo demee ca fawaakihu dawaani day wax ne faw dañ cay sart ki nga bokkalul mazhab la ngeen wuute ay farata mu bokk ci arkaan yi maanaam bu fekkee ne la ngeen bokkut ay mazhab daal farata yi nga xam ne mënta ñàkk ñu indi ko ci julli gi julli gi mën a wér loola moom wuutewu leen ci da ngeen a wuutee ci leneen xay na ci ay taayaak leneen ak xabdoog sabduloog tàmbalee bismillahi rahmaani rahim waaye bu fekkee ne imaam ji daa am yow loo xam ne yow da ngeen a jàpp ne farata la seen mazhab moom jëpp ko di ko bàyyi ñu ne kon kooku su boobaa loolu du wér wax jooju mooy wax ji nga xam ne daanaka moo mat a jàpp teewul nag boo demee ca sarxo ya indi nañ ci yeneen wax est ce que bu la imaam bi jiitee bàyyi ruko ba yow nga indi ruko bi julli ga dana baax waaye la gën daal mooy ki nga bokkal di julli na ngeen bokk di defandoo farata ya incha allah wallahu aalam laaj bi tege mbokk mi laaj ne genn njaboot a ngi nii seen waajur génn adduna bàyyi fi kër ñu ne dañuy jaay kër gi taaw bi ne da koy jënd ñoom ñu ne juróom fukki million lañ koy jaayee taaw bi na ñeen fukki million la am moom la koy jënde tey du yoon may na ko ko mu jënde ko <laughs> kooku moom wax dëgg euh, mu wax du waxe dara euh, ne lislaam may na ma ma ko ñeen fukki alale jàmbor nga ne lislaam may na ma lislaam ko lislaam du tooñ di kon kooku moom la mu wax wérut du wax ju wér foo ma sa fekk kuy maanaam foo ma sa gisee kuy jënd koo xam ne mooy joxe ab prix moo naan man nii laa ko jënd te lislaam moo ma may loola wérut kon loola wérut yooyu ñu tudde naan njaayu miiras amut ba tey te loolu sax moom du koy jënd moo koy def mu njëkk ña daan jaay ñoo daa xool naan liikat war naa mën a jar juróom fukki million waaye comme miiras la dëgg nañ ko jaaye nangam wala comme ki koy jënd daa bokk ci njaboot ki buñ ko ko mënee wàññil nangam loolu lépp euh, day fekk rek njaboot ga nga xam ne ñoo moom alal ja ñu d'accord ci amma njaboot gi ne juróom fukki million lañ koy jaay keene man ñeen fukk laa koy jëndee te far fas dama koy jënd may na ma ko la ma wax moom wérut lislaam mayu ko ko te xel na nangu ko kon li mën a nekk mooy ñi yor seen alal di ko jaay prix bañ la wax loolu dong nga koy mën a jënde boo ko mënut nga bàyyi sa morom jënd waaye nag kenn kenn mësta gis nag kuy jënd di forcer nit ñi nag ne faaw nangam ngeen may jaaye <laughs> loolu moom xam naa ne boo moytu taaw bi def ko xëy na daa defe ne lim nekk taaw wala boog daa dégg ñu naan njaayum miiras ba tax mu defe ne lislaam may na ko ko lislaam du tooñ ndax alal ji moom moomu ko da koo bokk ay nit te ñoom nee nañ lii la ñuy jaayee kon nag lislaam du ñëw naan leen farfoos lii ngeen di jaayee déedéet bu ñëwoon juróom-benn fukki million it loolu lañ ko jaay te ñoom ñëpp ñu déggoo ca incha allah loolu lay jar kon nag mënu koo jënd lislaam mayu ko ko mu di ko jënd prix boo ko neex déedéet kon daal ab jënd kat moom mënoo ñëw ne lii moom nangam laa koy jëndee da ngay laaj kay jaay rek mu wax la bu ma nee jënd baax na bu ma nee maslaa ak ñoom it ne leen comme ci kër gi laa bokkit wàññi leen ma ko nangam ba tey baax na euh, su ko defee moom nag bu koy bu koy na euh, maanaam prix bi ñu war a fay moom da am wàll maanaam ci misaal bu fekkoon tey ñetti nit la ma misaale ko misaal moo xam dana neex a jàpp seen bàyyi faatu ñu bàyyi fi kër ñu ne kër gi kat ñetti million lay jar kenn ci ñoom bu jëndee kër gi ñaari million dong lay joxe ndax moom ñetti million yi benn bi moo ko moom benn bi kee benn bi kee kon bim moom moom loolu du ko fay kon day yëkkati million jox kenn yëkkati million jox kee rek daal di moom kër gi su ko kon mel na ne jëndee na ko ñetti million kon moom mi koy jënd euh, juróom fukki million yooyu ñu koy laaj da ciy am wàll bu ko neexee mu ne dugal naa ci sama wàll la ca des nag mu génne ko joxe ko te bañ a def nag ni nit ñi def naan maa ko leb rek di dem te duñ ko xale fay nit ñi topp ci naan alal ji alal ja loolu bari na Sénégal loolu ñoo xam ne ñu ngi yóbbu alali jàmbur li gën a bon mooy lekk alal yi koo xam ne wax dëgg dafa faatu bàyyi fi njaboot ñu war koo miiras nga de maa ci jënd nangam wala yaa may topp nangam lekk ko loolu daal alal joo xam ne alal ju ko gën a bon amut wallahu taala aalamu bi sawaab wa ilayhi almarji wal maab hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk yi li mooy li fi jotoon na rotti ay laaj lu ci jub ci suñu borom la lu ci dëng nag ci matadik doomu aadama la in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh